maa ngi tudd Abdou Khoudoss Mbacké porte-parole di petit-fils de borom Darou Mouhty tey nag dafa am benn jàngat bu ñu bëgg a def bu ndaw rawat na ci màggal gi ñu génn di màggalu Darou Mouhty gi nga xam ni ginnaaw yàlla Darou yi mooy deuxième capital du mouridisme loolu moom xam naa yaakaar naa kenn du ko werante ñaare ba dem mooy dëkk diine bi nga xam ni ginnaaw Touba mooy dëkk bi nga xam ne diine ko diine lañ ko sance yaakaar naa Darou Mouhty dëkk yi nga xam sànce nañ ko ngir diine yaakaar naa daal mu si benn ëpp ko fi tey ji si ak màggaay si ak lépp léegi nag dafa am loo xam ne nii dafa mett dañoo mett ñun waa dëkk bi di sëti borom daaru musi mu metti ñu lool ñu bëgg see wax bëgg laaj président Macky Sall ñun waa daaru musi ñun lan lan lan ko def lan bëgg xam dal ndax daaru musi événement bu toll nii màggalu daaru musi un million personne di fi daje du ndox du courant lépp dafa manqué waaw léegi gis ngeen image yéen jël ngeen image fii nga xam ne nii sama kër la jàkkaarloo kër xalifa bi ndox tax mun sangoo mu nit ñi mënuñu koo am buñ bëggee ndox day dem rooti loolu ñu bëgg laaj léegi loolu lan mooy problème bi ñu bëgg ñu leeral ñu ko ñaareel beneen tam Daaru Musi dafa am yoo xam dafa am dafa bëri lum lu mu loo xam ne nii président Macky dafa bëri lu mu loo xam ne lu mu yittewoo loo xam ne dina bëgg président Macky mu taxaw si yaakaar naa bii mooy suñu deuxième fois ñu koy ñu koy kaas di ko laaj ndax nee na dafay day defar dëkk diine yi léegi dëkk diine bu koy defar jàpp naa ne bu weesoo Touba amul benn dëkk bu si war a jiitu Darou Moussi Darou Moussi benn bâtiment la fi defar ab bâtiment la fi defar waaw te loolu ma xanaa man mii tax bu ko sëñ ko Darou Moussi yoon la soxla ak hôpital ndax Darou Moussi dëkk la boo xam ni 73 villages ñoo ko wër yëpp di fay fajoo daar Moussi ba fi may waxee yow nii ab hôpital mënuñu ko am ay yoon yi moom comme ni ko sëñ Basa bu Xuróos waxee Darou Moussi dafa soxla ay yoon ay yoon la soxla ay tëli la soxla te ñoom xam na ne ñun fi ñu teg ñun waa Darou Mousty ñun xam nañ ko bis ni ko tey ndax galo ba mi nga xam ne moom la président Macky Sall yabal ci cérémonie officielle bi wax na ba pare ba àggal bi mu waxee ba pare amul dara loo xam ne nii Macky Sall naan na ko pour defal ko askanu daar Mousty loolu nag di loo xam ne métti nañu lool li leen xamal nag ñoom nan xam ni ñoom bu nax seen bopp population Darou Mousty kenn mënu leen nax xam nga ban population waaye Darou ñoom kenn kenn mënu ñoo nax nan nan xam ni troisième mandat bi ñoom lan la loolu la leen di xaar ban tudd ko fi ba xam loolu rek lañ leen dañu leen di dugg di leen xaar ndax ñoom ñu dara lu ñu defal te moom ba mu wut mi moom président Macky Sall ba mu wut réew mi moom heure su jaaxlee Darou Moussi lay ñëw Darou Moussi jiwu ko jàpp naa ni bu amee benn dëkk bu mi taxaw yaakaar naa daar Moussi kenn war ko see jiitu xabal tam population daar Moussi ñi nga xam ne ñu ngi wër yor seenu làmmiñ di wax dëkk bii di daar Moussi de amul dara la fi Macky Sall def dara la fi Macky Sall def amul population daar Moussi moom kontaan nañu si Macky Sall moom kontaan nañu si te élection bu fi jaar tam ñu wan ko ko ñu koy wan ko ñu ñun comme kontaan nu si yow ndax ñun ginnaaru kenn nanuñu waaw màggal gi taxawaay bi dafa des ndax man fi wax yow nii bëri na quartier yu fi nekk yoo xam ne nii courant waroon na faa dem demu fa dëkk bëri na dëkk bëri na quartier yoo xam ne nii ndox war na faa am amu fa kon nag loolu tamit foofu ñu mettlu ko man man gisu man de gisuma état lu mu def si màggal gi gisuma ko te population bi Darou Mouhty gisuñu loo xam ne état def na ko si màggal gi ñoom li ñu war a def defuñu ko ndax tey ba li ñu war a def bu ñu ko defoon tey doo gi dégg kenn ku dëkk Darou Moussi taxaw di wax naan Macky Sall lii Macky Sall lii ndax Macky Sall loolu tax mu for leen Macky Sall nekk mënut a nekk fépp dëkk bu ne boo gisee mu def fa ministre wala mu def fa DG li waral mooy coono ba nit ñi di jànkonteel moom ñu koy wax Macky Sall looloo tax Macky Sall teg leen fi waaye Macky Sall tegu leen fi pour ñu jël alal alalu réew mi di ko pasataane di def lu leen neex loolu taxu leen féetal li leen fi tax ñu teg leen fi xam ne askan wi soxla nañ ko ñu muy ci muy muy doo xam mënut a ñàkk muy di ndox di faju ñu koy àggale président Macky Sall loolu moo tax loolu moo tax président Macky Sall fal fal leen kon nag li ñuy ñuy lancé président Macky Sall ñun askanu daal ba su ñun kontaan na moom bëgguñu si moom